wajal jami humuri lillahi wa li rasulihi wa azim jaahi barkeb borom tubaa barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ak fu ñu mën a nekk ci àdduna ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara euh, di leen jaale it jëmm ju tedd ji nga xam ne moo fi bàyyi ko muy Baye a Diop Baye Fall moom Serigne Cheikh Fall Baye góor di ko jaale it waa Sullamul Wusul ñi nga xam ne daanaka day liggéey boo xam ne moo ko sumboon ànd ko mbokki taalibe yi Baye Ndiaga nag day ko xam ne lislaam ñàkk na kuréy rëy yoonu murit ñàkk na kàngam ju rëy waaye nag loolee alxuraan waxoon rek wala nabluwannakum bi shay'in min alxawfi wal juu'i min wa naqsi min al amwali wal anfusi wa thamaraati wa bashir as-sabirin allazina iza asaabathum wa inna ilayhi rajiun ulayka alayhim salawaatu min rabbihim wa rahma wa ulayka humul muhtadun loolee buñ ci dellee sunu sunu sunu xel rek sunu xel war a dal ci Baye waaye nag murit la woon kàngam la woon borom xam la woon aalim la woon àllam la woon ku xamoon la ku digg waaye nag li sëñ Mouhamed Kebe wax léegi daa xamoon ka defoon ci moom loola muy Serigne Cheikh Fall Baye Góor ibnu Cheikh Moul Moustapha Fall Kamal Serigne Cheikh Baye Góor dégg naa ci Serigne Assane mu Serigne Cheikh nee na sëñ sëñ Cheikh Fall daana ko wax na ko Assane sama alxuraan du alxuraan yi neen waaye loolu sëriñ Fallou Ndiaye wax léegi ne noonu la daan firi alxuraan ka defoon ci moom loola mooy sëriñ Cheikh Fall Baye góor wax naa nag ni ku mel ni sëñ Ndiaga dootu yomb ci yoonu murit sañ-sañ ba ak fit wi ak ngoram ak jomam akuk dëggoom akuk taalibeem ndax moom sëñ Cheikh Fall rek la wëyal dégg naa ci Baye Cheikh Ndiaye moom sëñ Abdou Awa Ndiaye moom sëñ Ndiaye soxna Balla moom it sëñ Cheikh Fall la ko yar wax na ma ni sëñ Cheikh Fall daana wax ni euh, nee na nit day su fenee bañ may ko ab téeméer su waxoon dëgg it mën nañ koo jox junni sëñ Njaga nag foofu la tegoon tànkam muy dëgg rek kon nag sunu borom mi ko jël yal na ko dugal ci yërmandeem yal na firdawsi wàccuwaayam wan nanu aw yoon loolay sëriñ Tuubaa waxoon ni ja'altu xidmati la lahu wa artaji min al ilaahi waslahu maa ngi ñaan sunu borom def naa saxab liggéey ci rasulillahi lépp muy haddiyal naa ko rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam wa artaji min al ilahi waslahu liggéey bi ma ko liggéeyal man Serigne Touba la ma ca laxas nee na moo yegg ci yàlla rek sëñ Ndiaga moom yegg na ndax daa tabbi ci bunt te bunt bi mu bi wax dëgg yàlla bunt li ci bunti maam Cheikh Ibrahima Fall yi Serigne Touba wax na ni xammitu rabbi alladi waffaqani wa xidmatan lil Mustafa razaqani kon ndeke liggéeyal Serigne Touba wërsëg wa yàllay maye bari xam-xam bari alal bërik dund taxula liggéeyal Serigne Touba wërsëg la wu yàlla def ci ab jaam sëñ Njaga nag yàlla du ko wërsëgale liggéeyal Serigne Touba lam ko joxoon nag mooy xam-xam te it ku ko làmb daj ko ku ko xool gis ko moom foofu la nekkoon kon nag la mu nekke woon muy liggéeyal Serigne Touba moom euh, tey jii rek la Serigne Touba waxoon ne lahum baadal mamaati kullu xayrin yushtaha saab taalibe Serigne Touba nee na saab taalibe bu laloon ndeyjooram bii ci biir bàmmeel sama teraanga sama diggante moom foofu la tàmbalee Serigne Njaga yi sunu xel dal na ci moom lii mu am tey jii lii mu am liggéey rek ko may zahadani xidmatuhul mardiya fii xidmatil muluki lil hadiya dëddu naa adduna ngir liggéeyal rasulullahi salallahu taala alayhi wa sallam sëñ Njaga dem ci réew yi adduna yëpp daanaka mën naa wax ne cinq continents yi dajal na ko wane fa Cheikh Ibra ki mu doon ak li mu doon ak njëriñ li doon aaye boobee Sëriñ Fallu Njaay mi ubbee mu yaa ayyuha alladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alimin tuminuuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum xayrun in kuntum taalamun su defee ñeent la ci yàllay fay yaxfir lakum zunubakum wa yudxilukum jannatin tajri min wa masakina tayiba fi jannati adnin dhalika huwa alfawzul fa mu nekk yàlla na jannatul firdays yu waayam nun nag nun ñi ay gone noo am sas wu rëy nu ngi koy jàll nag sëriñ Cheikh Fall borom ndigal mi nga xam ne mooy sunu kilifa di kilifaam eh, te it di buntub sëriñ Cheikh Fall Baye góor waaye ñu ngi koy ñaanal buntam ci ñu ngi koy ñu ngi koy jaale buntam ci yoon wi muy sëriñ seex Fall sëriñ Cheikh Touba Sam ibnu seex Modou Moustapha Fall ibnu sëriñ Cheikh Fall bu góor ndax waajuram moo njëkk a wutu sëriñ Cheikh Fall muy sëriñ Moustapha Fall kookee moo meññ sëriñ Cheikh Touba Sam sëriñ Cheikh Fall